depuis 2020 y a plus de amatul polio Sénégal mais virus baa ngi circulé dans deux pays actuellement mooy Afghanistan ak Pakistan te virus bi tant que éradiqué wuñ ko tout le monde ça peut revenir euh, ñu ne dañ ko éradiquer parce que dafa am vaccin et xam nga loo xam ne am na vaccin rek yomb nañu éradiquer ko mooy mooy ñu vacciner ñëpp donc il faut dañuy vacciner xale yi de zéro à cinq suñ jëlee vaccin yëpp xale yi dina dina aar seen bopp aar ñu pour pour cela que ñun chaque année Watar yi day célébrer journée mondiale de lutte contre la polio moo tax tey ñun ñu dox pour sensibiliser gis nga sunu sunu kii on ñu ngi ñu ngi wax vaccin yi c'est pour pour dire que toujours nañ continuer di vacciner xale suñu vacciné wu xale yi polio day mën na ñëwaat encore c'est pour cela que ñu ñu campagne de sensibilisation pour njaboot yëpp. yóbbu seen doom ñu am vaccination complète le 24 octobre soo demee si biir Dakar da gis man dina am affiche yu ñuy wax ne j'aide à éradiquer la polio mooy journée mondiale mais ba xam nga dox le 24 neexul parce que c'est jeudi boo ko tey comme samedi la ñu mën réunir ñëpp ñëpp dox ñu dox